Tayinak jii nag tàmbali nañu euh, suñu campagne bi nga xamné euh, war nañu dem ci région yépp ñu Tambali ko tay dans la région de Thiès euh, ñu samp fi lu tollu ni de manière symbolique 699 euh, encore une fois ma ngi sante bu baax population yi nga xamné fekk nañ leen fi euh sudul woon contexte bi nga xamné mom moom ñu tënk mi. Euh, mobilisation bi dina fi gëna a mais nous avons voulu euh, ci cadre bi nga xamné moy respect geste barrière yi euh, def li nga xamné mom moy euh mobilisation yu yem pour éviter ñuy traîner ay foule yu bari bëri ma ngi bu baax le Khalif général de Tidiane et le Khalif général de Ndiassane ñaari Khalif généraux yi Euh, ginnaaw bu ñu amalee journée de reboisement fii ci région bi ci Tivaouane ak Ndiassane euh, sàkkul nañ leen ñaan ñu ñaanal réew mi euh, ñaanal réew mi yàlla may ñu ñu génn ci li nga xam ne moom mooy mbas mi mais également ñaanal réew mi pour ñu am nawet bi nga xam ne nawet bu barke la Euh, ñaanal réew mi également ñaanal président de la république pour que li nga xam ne moom la sumb euh, mu nekk mébétam euh, yàlla daal di koy antul jëmbat garab lu baax la waaye toppatoo ko lu am solo la donc loolu suñu xel dal na ci li nga xam ne moom la ñu dégg fii te fépp fu ñu jaar tamit engagement boobu la population yi jël ak ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi Euh, ñaax ndaw ñi ñaax mag ñi ñaax jigéen ñi ñaax ndaw yi surtout pour que ñu gën a farlu euh, ci li nga xam ne moom mooy njëmbatum garab euh, daf ñuy permettre àll bi gën a daf ñuy permettre dëkkuwaay yi gën a rafet gën a ñoŋ loolu mooy président de la république